ne mënoo sama sama sama gaan la baa ngi noonu si diggante confiance ak Boy Signé confiance moo ñu wan ginnaaw ngémboo ngémbul bëlali Boy Singer moo na ar bi sifflé na seen confiance ngi door confiance ngi door confiance ngi door confiance ngi door door mu daanu door mu daanu mii na confiance daanu si ñëw waaye yow mu na di waa lii lan la woo leen message déggal loolu déggal loolu jël ko mi ngi noonu ko koy confiance il est toujours confiant il est toujours déterminé mi ngi noonu nee na dafa am doole moom daan na ko. vite fait bien fait daan waaw waaw vite fait bien fait. vite bien fait confiance mi ngi ci lancé bu exceptionnel sama gars yi bàyyi leen ko xel mi ngi jóge ci. tey